وأسبلن علينا رب عافية وهب لنا الخزن في الدارين يا وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسانهين من الخيرات يا واسلك بنا نهج رشد واكفنا سللا وكن لنا بالنوى الشيطان يا salaamaaleykum mbokk internet yi Amsa TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo boo leen gisee fi ma taxaw nag xam ne ñoo ngi Touba Mbacké dëkk Cheikh Ahmadou Bamba dëkk bi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba moo ne woon lu fi waay liggéey maa koy fayal sama bopp waaye nag lu fi waay ñaan man maa ko koy nangul tey foofu leen nekk ñoo ngi fi ñun télé askan bi pour yéen ñi ngeen xamante ne amoon ngeen Pastef fu ñëw fekkee 18 safar waaye it tey àdduna bi jàpp na leen ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci diaspora bi seen jug xaw a tuuti tey nag dinañ ñëw toppal leen lépp loo xamante ni moo fi xew ci 18 safar bi muy avant pendant ak après. papa ñoo ngi lay nuyu. waaw ah, ñoo ngi lay ah, leen nuyu yéen ñëpp di sant bi tam noo sant Serigne Touba bu wér a wér suñ kemtulaay kàttan ndax lépp loo xamante ni jóg nañ di ko def Serigne Touba moo tax ñu di ko def te Serigne Touba jaral nañ ko nun bu aman adduna ak li biiram ak lu mën a nekk rek Serigne Touba jaral nañu waaw papa gis nañ ni nit ñi mbooloom bi jóge nañ fu ne ñëw biñ ñëwee Touba dalal nañ leen macha allah benn yi ngi ñëw amuñu benn problème mais dëgg-dëgg lu wundu màggal bi ak sëñ bi lan la digale ci màggal bi sëñ bi moom li mu njëkk a mooy jàng alxuraan ak xasaayit boole ko am yar ak i teggin gan gu ñëw nga wàcc sablal jox ko sablal mu toog. màggal sëñ Tuubaa gi moom liñ ci digle li ci sëñ bi dégle la rek ngir ñu santale ko yàlla sax boroom bi te lim fi woote moom même moom la fi woote sax même bu dul màggal muy sàlloog yar ak i teggin ngir bañ. di xotti warmaay dëkk bi cant gi nag maanaam lépp luy xeetu bernde ak teraanga waaw dañoo wax ne sax même boo demee ba nga xamante ne tey yoroo sax loo xamante ne bernde ba maam ci loo mën a berndee nit la nga am fay ju toll ne maanaam mën a sës ci waañu comme nii ma ci sësee ba xéwali bu ci génnee kenn du la ci ëppale. sëñ Mountakha euh, joxe na message bu am importance su su si commune du mën a wax sax su communauté Mouride kese waaye euh, bépp mboolem képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah euh, joxe na ne képp koo xam ne ñëw dangay dugg si dëkk bi na nga ànd ak ak teggin. parce que dëkk bii dëkk bii di Touba dafa dafa uteeg dëkk yi bëri parce que sëriñ bi lépp loo xam ne da ko doon uti fii la ko fii la yàlla suñu borom ji nga maye ko ko tamit joxe na ne de barab bii ñuy ñëw. ah képp koo xam ne da nga fiy ñëw ji nga di sàkk lu baax tamit ji nga da nga ko am di wax sama mbokk taalibe Baay Faal yi nga xam dañuy màggasi di ñëw si dëkk Sëñ Tuubaa bu sell bi ñu ànd ak yar ak teggin ndax fii loolu moo fi am képp koo xam ne màggal moo la tax a jóg boo dikkee ngay ànd ak yar ak teggin màggal na mu waree nga ñibbaa si jàmm ndax Sëriñ Muntaxa bi màgg jub see nee na képp koo xam ne ne progrès moo la fi indi ci màggal gi man ngaa toog muy sama mbokk yaay faale ak sama mbokk baay faale moom comportement bi moom presque wane na borom mais bu muy màggal muy muy ñàkk màggal lépp ñëpp xam nañ ni màggal moom boo ñëwee cant euh, li nga xam ne mooy moom nga war a mel mooy nii dëkk bi mel parce que dëkk bi ñëpp xam na dëkk bu yiw la euh, rawatina ñi nga xam ne mooy sa euh, jigéen ñi ñu mel melekaan woo xam ne bu ñëwee dina xam que ñii ku la gis xam ne kii kat màggal moo ko tax a jóg comme borom dëkk bi dafa santaane Euh, lu yiw ci dëkk bi col gu yiw doxeen wu yiw wax waxeen wu kon lépp lu kuy màgg sax war ngaa bàyyi xel que ne yow fa ngay dem nii dëkk bu bu yiw bu sell la kon na ngay mel ba ñëw euh, ñëpp war na ko xam mooy sol lu yiw sol lu jot tamit am ay teggin war ma dëkk bi loolu mooy mooy mooy li nga xam ne moom la borom dëkk bi santaane